macha allah ba tey ci suratu charx yi lii nag moom faayida la bu am solo jëm ci wàllu ñi nga xam ne dañ ko fas yéene zikar waaw alam na sharax nag comme ay alxuraan yëpp comme saaru alxuraan yëpp lim boo leen mënti zikar baax na waaye daf ci am lim yoo xam ne lim yu central yu baax lool macha allah ci ñi zikar mu nekk lim yu ñu xam commençant par 14 lépp delluwaat ci tur yàlla di wahaabu dem 66 di allah 55 di mujibu ba tey delluwaat ci tur yàlla yi asmaulahi xusna 70 di kun 313 ba tey di chiffre bu am solo waaye daal chifre bii nga xamante ne daal moom laa fas yéene tëjee ci waxtaanu alam nashrah donte alam nashrah moom mun nañ toog di ci wax fii ba keroog yombal xiyam te du tax ñu jeexal ci ci ay faayida ak ay njëriñ waaye lii dafa nekk lu am solo loo xam ne daal ñu ngi koy baaxee képp koo xam ne gis nga ne dangaa teju lool ba mu jaaxal la wala sa buntu wërsëg yi tëju wala nga am looy dëgmal bëgg ci am ndam moo xam ci wàllu wërsëg la moo xam ci looy xëccoo jëm ci lu baax moo xam place la moo xam examen la moo xam xaalis boo xam ne bëgg nga cee jot mu jafe moo xam nit koo xam ne lu mu yaakaar day tas maa ngi lay diggal ngay zikkar alam na sharax di suratu sharxi li mu 103 103 boobu nga xam ne dafa tolloog li mu lettres yi ko composé wàññeekuwaat tolloo ah nombre de lettres yi ko composé wàññeekuwaat tolloo ak lii di baatu yaa Muhammad mi nga xamante ne mooy gën gi mi def sallallahu alayhi wa ñu jagleel ko saar bii di alam nashrah nga xamante ne dañ cee wax ngëneel yu bari yoo xam ne suñu borom defal na ko kon nag ñu tàggatoo foofu di leen wax ne daal macha allah lépp lu si nekk rek lu jub rek kàttanu suñu borom la ak suñu borom lu si dëng nag man mii maa juum man sëñ Abdoulaye Ndiaye di wax ngeen bàyyi xel bu baax a baax a baax suñu saar yeeg suñu aaya alxuraan yii ndax alxuraan lépp njëriñ la ak ngëneel di wax tamit ne képp ku ko bëgg a jariñoo fexeel ba liñ na ci sant nga lu ci di ko def luñ